خليل يا عيا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيابد خليل يا عيا وانزلا بالتواون تواون فيها اليمن للمطيابد فما طار فيها طائر متسائم ولكنها ذات الطيور الميامن ولم يك قبل الفت ومنزلي ولا هي في أرضي ولا من مواتمي ولكنها صارت مدينة مالكي لخجك حين المسيح ما بين سبيل الودان ما خلف بين ساعتي فمن يا أخي قد بي قلب في الغرام فأين كريم الذي يستكى ما خلف أين سرى تيف يا أخي قد غوى قلب في الأرض المتوى أين الكريم الذي يزداد مام خلفة بين سراتي فرمان يا أقي قروا قلب في الغرام تواوى لنا يغفر يغفر فرا مام خلفة بين سراتي فمان يا أخي قد في قلب في الغرام انتوى يا إلي mambayna sara mam khaliwa wayna saratifuma ya aqi qarwa bi qalbu fi رابط قلبي ما بين المدي ما خلي بين سراتيكما يا أقي قروا قلب في الغرام توا أو مسكين أو هم بين خاتم هل يا بين سراتي فمان يا أخي قرهوان بي قلب في الغرام انتوان الموال ما بين ما خلق بين سراتيكما يا أخي قرهوا في قلب في الغرام منتوى من أين تجري للجزيل آباء الإله ما خلق بين سراتيفما يا أخي قهوة قلب في الغراب انتوى سرف رب البرايا العالمين maam xalifa mbay na saraat tayfu ma ya axi qal huwa bi qalbu fi al gharab tawa أرتاح رب الجفاء المهضمينا ميرايا بنكر عيدا خليا بين سراتي فما يا أخي قد هوى في قلب في الغرام سوى فاعل ما شاء maam bay na ulina maam xaliwaam na saraa tayfu

salaatu salaam maam xali am bayna laylo maam xali am bayna saratay fuman ya akhi qad huwa bi qalbu fi al gharam tawa وآل وصحب مام قليلا بينها مام خليا بين سراتيف ما يا أخي قد هو أبي قلب في الغرام تواوى آل وصحبه مام خليا بينها maam xaliya mbay na saratay fum أخي قد هوى نبي قلبه في الغرام من تواني تواونا وتواونا leen wuy ji wuy ji leen jóg wuy ji maam maam xaliwa mbay na tiwaawoon na waate ton bool wuy ji leen wuy jóg wuy ji maam moo de arangure يا إلهي وجزيا أبدا أن سيدنا المختار في الخدام صدنا وصليا يا إلهي وجدي أنا أبدا أن محمدا المختار في القدام بعد مر إلى الفتى بزورة ذات المجد والكرم صرنا وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدنا مختار في القيام آمين مرة على مرأة تدعى بفاتمة تبغي المال إليه محمدا أن محمدا مختار في عبد الله سيدنا عدوا إلى خيرنا ليدي كان أبدا أن محمدا حسن فللي درتنا أمنا تننا أنا

ختار كل قدامى في سعدي يوم سيدنا المختار قد عمى حملت وقال سعد قلوب أقتل أجمعنا وسلم يا إله معتار في الغنى حلي عروبتي حي baami sëriñ bay si ne waasaaliyani yaa ilaa i wajibiyana تار في القيدة دهني تنبا أن نور الختم لا إله إلا ممن وصلي يا إلهي وجدي أنا أبدا مختار في القدم عتير وبخير جناتي تكريما على الخلق ما من سر بيسنا وصلي أنيا أبدا ألنا محمدنا محتار في القيد دفلني وخال ويله لغمو يا أمه التي حملت حملت بغازه تربة من أذخار سير الحادي مالنا في وجدي أنا أبدا أنا محمدنا محتار في القينا جنتي ran ran ran iblis nu li mawlidi وخيل عباده واللعن والرب سيد الحاج مالنا وصلي إلى يوجدي أنا أبدا أنا محمد أنا محتار في القيد لي وخال ويلا لهم يا أمتي حملت حملت في هذه درة عن خير سير الحاج مالنا وصلي يا إلهي وجدي أنا أبدا أن محمدنا مختار في القيدة ننتبه وجاء آدم تبصيرا وسيسولا إدريس نوح وهود والخالي سير الحاج مالنا وصلي يا إلهي واجبي لنا أبدا أنا محمد مختار في القدم الذبيح كليم الله كلمته من أول سعد في ترتيب صير العظيم علينا وصلي يا إلهي واجزي أنا أبدا أنا محمدنا محتار في القيدة دفلني على النبي وعليهم أجمعين صلاة ربنا دائما أما ما بسر بيسنا أصلي يا إلهي وجدي أنا أبدا أن محمدنا مؤتار في القدم وما تديخ من النسواء من أسف أسف عرفنا ذاك من الكفار لا سير العاج مالنا وصلي يا إله به وجدي أنا أبدا أن محمدنا محتار في القدم وما تضيع من النسوان من أسف أسكن عرفنا ذاك من الكفان لا سير الحادي مالنا وصلي يا إله يوجدي أنا أبدا أنا محمدنا معتار في القدم وما تديخ من النسوان أسف أسف عرفنا ذاك من الكهان لا سيد العادم علينا وصلي يا إلهي واجزي أنا أبدا أنا محمدنا مختار في القيد بفلني خول الأعيز حسد بالواحد سامد موصوف ذي مامي سرين بيسنا وصلي يا إله وجدي أنا أبدا أنا محمد أنا محتار في الخدمة الهدى ثم الداء والبغاء أدبا حمل بخير الورى المختار سير الأولين وصليا يا إلهي واجزي أنا أبدا أن محمدنا اختار في القيدة أي مصطفى آه وسلم واو واو يا إله واو واو هو جزية واو واو أبدا مدق لي أنا واو مدنا المختار محمد البشير وسليا يا إله واو هو جزيا أبدا أينا محمدنا المختار في الغيب loxo ca kam waaw waaw waaw waaw yee moo dégg lii yanda waaw madanaal mama doonu xamal yonent bi wasalliyan ya ilah bihi wajziyan awadan ayana muhammadan al muhtar fil qidami xatmul wilaya bi fi am na ku gën a ختم الولاية مكتوم سرائره شيخنا التجاني لولا رسول كان سيدي أحمد التجار كل شيوخي أو قول الخلق منفردا من خدرة الغيب إن رب أعلى خليفة وي ويل المنايل تميم المسايا ويمن نايلة تهميم المسايا وقد جاءت وراثته أتى ختم أواه حلفا وإنا للخلافة قد زاءت وراثته أتاه ختم من الرحمن والجاه ختم ختم بل ننقان أتاه ختم سقتي جانا من كان أتاه ختم ختم سقتي جانا من دعا أتاه من الرحمن والجاه وفي آفاقي حملا لا أسبع الناس ألباوي أو أسبع الوبل في آفاقي منحملا لا أسبع الناس خرق في جدواه ما بقونا ملك مي mbaa ma am ku mel ni ki mbay waaju mel ni mbay du fi am dootu fi am te dootu fi am fii jaduwaa woo fii jaduwaa Cheikhu Tidiane Serif na bey maama fii jaduwaa جدواه عاشقنا بإمام في جدواه عاشقنا بإمام أتنمل عاشقنا بإمام برزق عاشقنا بإمام في جدواه رام سيد السما مولو في جدواه أجل loxoy ca kaw fii jadwaaw dal ma siidal asama mawdo fii jadwaaw Babacar Si jël na ndam la ah mambali wa Babacar Si jël na ndam la ah xali wa Babacar Si jël na ndam la ah xali wa Babacar Si jël na ndam la ah xali wa Babacar Si jël na ndam la ah xale Babacar Si jël na ndam la maam Khalifa maam Serigne Babacar Sy jël ndam la at màggal maam Khalifa Babacar Sy jël na ndam taxaw màggal maam Khalifa Babacar Sy jël na ndam la at màggal maam Khalifa Babacar Sy jël na ndam at màggal ah Khalifa Babacar Sy jël na ndam at màggal ah Khalifa Babacar Sy jël na ndam la ah xale Ababacar Sy jël na ndam la sama xale Ababacar Sy jël na ndam maam xale maam xale Ababacar Sy jël na ndam borom leeri maam xale Ababacar Sy jël na ndam la ah xale Ababacar Sy jël na ndam noonu la ma doo xale Ababacar Sy jël na ndam la fi jadwa sama may Mamadou Mansour moom la nu fal ba Alaaji Mansour ay sëñ bay Mansour moom la nu fal ba a ay sëñ bay Mansour moom la nu fal ba ay sëñ bay Mansour moom

Mansour ay sëñ ay Mansour Mansour aca def leen nii leen màggal màggal Mansour kon de taw kon de taw na jaara ala sabran sabran albu salima salima ojima ojima alxawlo di so di so ya di ya di Mansour Mansour doy nga doy nga lu baax lu baax a weesu weesu baax xam nga si soo soo daaya daaya Muhammad Muhammad Mansour Malick Sy Sine soo soo baayam baayam daaya di mam Abdul Adil Adil bare na bare na ma leen fii ku fi fii ku fi dem bax bax loxoy jagaw loxoy jagaw fi ku fi fi ku fi fi ku fi loxoy jagaw jagaw loxo jag loxo jag kaw jag ko suubu aca ku def aca ku def ay sa ay aca laag aca laag aca suubu unity unity yaay sunu mooy mooy sunu ko ci sunu ko nga teg nga teg jaani taani ga dunia wa wa wa تسليم الإله على الخير خليفة خليفة وعلى أصحابي هدى الله والكل يخشى يخشى ñu ngi jégalu bu baax neex na trop macha allah mais heure bi moo xaw a gaaw gaaw ah asalaamaaleykum yi ñu ngi leen di nuyu di leen ah, fa tabarakallahu wéyal programme bi mais temps bi dafa xaw a gaaw defe naa deux heures et quelques jot na du dëgg te ñu war a jël kàddu dañu bari sëñ Babacar si mii fi sëñ Cheikh war na jël kàddu ah sëñ mbokk Mouhamed Lo mii fi te am na ñeneen ñu war a gàmm ñu war a ñëw kon bu ko defee wa tabaarakallaahu dañ koy jéem a yaatal fu ñu jox kàddu rek nga jël benn 15 minutes wala benn 10 minutes pour ñeneen ñu mën a wax. bu ko defee balaa fajar incha allah rabbi ñu mën koy jóge mais sinon rek dina ala dawme bu defee ñu jox sëñ màggat mu jàng tuuti incha allah rabbi bu paree sëñ cheikh ñu jéem a ubbi wuy la programme incha allah màggat bismillah أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بولونا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ñu ziyaare ñëpp ziyaare ñëpp ziyaare ñëpp di jéggulu tamit jéggulu tamit lu tamit baax a baax a baax a baax a baax ndax xaaja bi xaaja bi maa ngi doon wax ëpp naa da ëpp naa lay xam wallaay lu ñu fay wax lu ñu fay wax lu gën a kawe lu gën a kawe la ñu jéem a ñu jéem a kii ba mu kii ba mu kii rek ba mu kii rek delloo incha allah incha allah incha allah ngi ziyaara sëriñ ziyaara sëriñ bi di ko jox wàcc ko jox wàcc waaye kon ndokkeel kon ndokkeel di ñaan yàlla ñaan yàlla teewe ci waa teewe ci saa teewe ci salaam salaam تزوم خدم خدم أفراد أفراد أستاذ أستاذ أستاذ على حبيب ربنا السلام السلام السلام سلام سلام سلام سلام سلام أسكى أسكى سلام كما كما على على على kon wa aalihi wa sahbihi nun dey lillaahi raaj na saxaaba ya saxaaba ya daan kàppa kàppa di naafila naafila jël rekk di ko rekk di ko julli nga dem bàq dem bàq ya war ar war armeel siyaar bam siyaar bam ñibbisi ñibbisi fekk leen ci benn ci benn su yooyu bu sigee bu sigee Cheikh Omar Cheikh Omar Fuuti am na doomam am na doomam boo xam ni bi waa këram bi waa këram tanu rey tanu rey tanu rey fa mu doon pax la doon pax la doon wa aalihi wa sahbihi لله راكي راكي شاكي شاكي تورة تورة تورة انفيل انفيل وانا وانا تورة تورة رسول رسول يوم دلو وانا دلو وانا كنت بيو بيو بيو ñu ne Maodo gaañu ne gaañu jël nañ ko ba ne ko lu tax ko lu tax a jël a jël wax yow wax yow wax yow لله لله مولانا الكريم نعوذ بالله salawaatu day si شمسنا شمسنا مولا يمين يمين تدنا آية آية أمان تدنا تدنا يمين أسماء أسماء حمام حمام شمس دفاعي دفاعي وحلا يقول يقول يقول وزور قرن قرن قرن قرن قرن قرن قرن

وكان بان على على بالخلاق لا أبي أبي قال قال يلا يلا يلا manum manum manum في يوم في يوم فصل فصل فصل وذاك قول ما قول ما قول ما حرل حرل حرل منم منم خذ خذ خذ يا يا يا sëriñ bi baal sëriñ bi baal sabal sabal Salma, Salma, Salma, Salma. Ba, tuna, tuna, tuna. Arbo. sabal sabal wazulu bila ya وغرك وغرك من السنة بات بات بات مدخسر الحاج الحاج مالك وخي سرين توبا ويبا ويتي مودوني يومي يومي دو السفر كتاقا كتاقا يبيا كويجي والحاج مالك مالك دو السفر السفر كتاقا يا كويجي مودوني سيدان سيدان فيا عجبا عجبا عجبا إما إما إما إما ومن يقلب اليمنى في

bayam bayam bayam bayam bayam bayam bayam bayam bayam bayam bayam malik malik bayam bayam bayam kinada kinada bayam bayam bayam bayam bayam mudirika mudirika bayam bayam ilyas ilyas bayam bayam bayam muda bayam bayam bayam mizar mizar bayam bayam bayam bayam mawdo bayam bayam kunjani wax ngi wax maa ngi wax waaye wax waaye wax yaay Abdoulaye Abdoulaye bàyyi yële bàyyi yële yaay amul mu tax amul mu tax salmaay salmaay yaay amul yaay amul yaay muda zawjatoy yaayam sarma atoy yaayam mahatoy yaayam xoolal mu topp indi maam indi maam yu góor wax yu seen xoolal na xoolal na ca baay yu ndaw yu ndaw ya xam na baay yu ndaw baay yu ndaw am ak benn ak benn baayam bu baayam bu ndaw subay subay baayam bu baayam bu ndaw amzat amzat baayam bu baayam bu ndaw bola bola baayam baayam bu ndaw sam sam baayam bu baayam bu ndaw hayda hayda baayam baayam bu bayam bu bayam bu ndaw abdul kabel kabel bayam bayam bu ndaw dirar dirar bayam bayam bu ndaw xijulu xijulu bayam bayam bu ndaw abdoulaye abdoulaye ñu fukk ak ñaar mawdo baye bu baye bu ñu ci tab ñu ci tab ñu islam nga ñu ak ci bokk ci bokk ci islam hamza tak hamza tak abbas dugg nañ ci hamza tam hamza tam moo daan moo daan hu yefer yefer ya dokol day lokol day jor ba jaasi ba jaasi jëne rasul jafa bu cam bu cam bu kola ca fas المرشد المرشد من العظام العظام الشداد العذر وسيق وسيق وسيق تجان تجان فسوتون فسوتون فسوتون وسيق وسيق جاج وخيج وخيج فرجم قلب خجنا خجنا قويت فسويت فسودا من تحبت تحبت قد خيج قد خيج الكبر الكبر وحمزة وحمزة جلعة جلعة جل رسول جل رسول ييكو كتشتي كتشتي كتشتي فخبت فخبت دك نوب دك نوب يسام يسام كوني ونيرن ونيرن سبا baay xam sa baay xam sa baay ci mbaar toog ci mbaar ne sama baay sama baay bu ndaw ma daan moo ma daan defar sama baay sama baay bu ndaw ma ñaanal moo ma ñaanal soxna ko rey ma ko rey ma toog ci mbaar bi bu génne Aboubacar Aboubacar dem dem mënte ne nañ ma rey nañ ma rey waaye duma fi waaye duma fi waaye rasulullah inna abidina abidina dem dem dem mënte ne nañ ma rey nañ ma rey waaye duma fi waaye duma fi waaye rasulullah leen àndaale leen ndeysaan ndeysaan tim baayam tim baayam xol bi yëpp yëpp réew wëndeel bu këlu laaj ko ca laaj ko ca laaj ba daal ba daal yu wëndelaan yu wëndelaan yu daaj daaj ko ci daaj enfer ba mu sori ca bu noor ca boobu mais ñaar yooyu ñaar yooyu ko miiroo ko miiroo kandaaru kandaaru daanu jabaanu yëfër kon tamu tamu su fa tamu day fa al yawm al yawm yawmul bi bari wal xabu wal xabu fu jaal ngeen jaal ngeen abu jaal ngeen naaw leen waaye ren waaye ren la reel nañ reel nañ xam ko déggee ko déggee ba doon saxaaba ñoom saxaaba yi xam ko déggee abi taalib abi taalib dem dem mën na feeg rek feeg rek dama fi bàyyi rasulullah ana leen encore yooyu santim ko di ko yàgg ba yàgg moo ne deewul de deewul de ñoo gaa ngi fi tax xippi ni xippi ni gis ngi yëg maa ngi yëg yàlla yu téléphoné téléphoné malikul jibaal ministre bi ministre bi ne bu deret laale suuf laale suuf ñaari doj yi seq ma ko dajale mu dajale mu raaf benn dañu leen bàyyi leen fii seen laay naa laay naa laay ma gënal ma gënal mu rayal ma sama loolu la gën a ñëpp ak ñu mujj sëy mu sëy mu naan amal laay laay alayhi wa sallam daf leen ni ci yonent bi waay ala ahmadina salawaat salawaat wan weena weena weena ñaata fan la fan la ku mu àndalo àndalo mu taari mu taari kaay kaay médecin bi médecin bi mooy asraaf def leen nii def leen nii sayyiduna sayyiduna Muhammad Rasulullah jalla faal faal ma jaqaay jaqaay ale yaa wane leeru diine li as li as li as ci ay maqata ngeeg ngeeg suuna suuna ngalaat as wa dama jóge maa jóge Casamance ànd ak daayira bi yoona ñu jëm Tiwaawan di gàmmu gi oto ba ñu duggoon oto ba ñu duggoon chauffeur ba daal di teg kaset ñu keeferal keeferal magi naan dañoo lekk ay yàpp xaj naan sidil sidil amoon na beneen sëriñ ma ne ko chauffeur ne ko chauffeur dama yaakaar ne jaawale tiwaawoon tiwaawoon la ñu jëm teggil teggil kaset bi nga tegal ma nga tegal ma duut kenn ba mu amatul ba mu amatul pexe mu teggi ko teggi ko teggi ko waaye la bàyyi waaye la bàyyi may na doon wax rek kër gi du ma fi kër gi du ma fi waay waaye bu waaye bu amee ma wax amee ma wax ci ñu jël xalim ñu jël xalim jël xalim bismillah ilaahi may seen tuwaay bismil ilaay ilaay may saytu way di way way kiriw di war di way ndax moo defoo defoo waa Sénégal liñ séntu woon du ndam Fuuta Kajoor Njàmbur Njàmbur Jolof Saalum Saalum Bawol Bawol lamaw lamaw jakaas jakaas jakaas waral waral waral nga xam ne maam maam Maodo Dumas baatina baatina useeju useeju useeju usuri usuri kap cambare bare bare aussi aussi kafutu kuseen kuseen Maodo lañuy déglu waxam lu waxam lu waxam kabruus kabruus dugal ba Gambia Kolda Kolda ba jaw ba jaw ba jaw ba dëgmal sëriñ bi sëriñ Diop ci zaayiram ak baatinam dem na ziar ji rasool aj toog ca biir ca biir rasool xanaa xanaa xanaa rasool rasool dañoo ci ay jëfam ay jëfam Maodo bu Maodo bu doon ragal tubaab du def du def pour gis tubaab tubaab mu jël fësal tubaab tubaab doot doot doot ko Dakar ko Dakar ko Dakar def ko Tiwaawan Tiwaawan Bakayaar def ko bitim réew ko Tiwaawan ko Tiwaawan mu dem mu dem def fa juma def fa juma ñaan geen geen ba jeex ta leer ta perte temps les temps les temps seen jol fa jol fa ja xaay Namba jërëjëf jërëjëf yal yàlla fay na yàlla fay na yàlla fay ñëpp bég de ñëpp bég de ñëpp kàddu yi rafet na ñu dellu nuyu kilifa yi fi teew léegi euh, ñuy suñuy wëllëre di wëllëre sëriñ bi nga xam ni seen diggante ak sëriñ bi yàgg nañ du tey te incha allah kenn ku ci ne ku ci ne da nga jël kàddu ngir yàlla ak sa cofeel ci digg sa cofeel ak sëriñ Cheikh sëriñ bi dafa joxe ndigal ñu ngeen jox élage ci turu waa marché Zeng mu wax ci seen tur ñoom ñëpp ndax ñoom taxawaay yu rëy yu am ci bis bi macha allah bu daanelee rek incha allah ñu continuer programme bi xam nañ tey xat na lool waaye gars yi bàyyi seen lépp ñu ngir yàlla ak sëriñ bi ñoo ngi leen di ñaanal yàlla leen yàlla loolu seen sutura ci dara jërëjëf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 اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت السهل سهلا وما توفيقنا إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baal àq di leen baal àq di ñaan yàlla yàlla yàlla boole jégal yàlla defal ñu tawfiix tawfiix tawfiix defal ñu taysir ci barke borom guddi gi muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah kàddu yi nag xam naa du gudd mais lu munta ñàkk lag la Serigne Cheikh dafa waxoon naa jël kàddu ma ne ëpp naa def mënuma mais munta ñàkk foog ma jël kàddu ci turu euh, délégation bi jóge Marthe Zeng bi nga xam ne si yàlla moom moo ñu boole seen cheikh bi ñu boolee moom ba léegi fa tabaarakallaahu ah macha allah lépp ay yokkute la mëna woon naa jël kàddu ci turu marché bi mu xamal ne mi ngi sant waa marché Zeng bu baax a baax a baax a baax ah nee na wax dëgg fa yàlla de amul fay ci waa marché Zeng ah boo gisee mu wax waa marché Zeng nag. xam naa bu jilee kàddu incha allahu rabbi dina wax ñi fi teew ñëpp ñëw dal ci dal bi mais dafa na ma jëlal kàddu nga santal ma waa Marthe Zeng xamal ma leen ne nag wax dëgg fa yàlla li ñu def nii ñëw dal fii te ñoom ñëpp amoon nañu fu ñu mën a dal yi ñu bàyyi ko ngir jëmmam ji ñëw dal ak moom loolu sori na ci moom loolu mais nag si loolu yaa ñu ko ji fa tabaarakallaahu defe naa ne sànq ci bëccëg fii wax na ko martha zeng ñi fi dal ñëpp boo xoolee tey jii amul murit amul tijaan amul xaadir amul laayen amul ñaseen am na ñoo xam ne si ñaseen lañu ñu waroon a gàmmu jee mais ñu ngi fii toog am na ñoo xam ne si Touba la ñu waroon a dem mais ngir jëmm sa jëmm moo tax ñu fomm loolu lépp toog fii chaque année yoon la ñuy gàmmool loolu sa jukka la kon sëriñ bi kontaan na trop maanaam man li ma ko waxee lottu naa ci jàllale information bi noonu mais daal mi ngi sant waa Marzeng yëpp bu lim suñu limee dañuy juum parce que délégation bi rëy na te na mais nag mu jël nuyoo bi yëpp rek tekkee ci suñu loxo bann suñu benn sœur muy Xawaa Njaay mu tekkee ci loxoom mu tegal ko ci loxo xale yi fi nekk ñëpp tabaarakallah ñoom Alsaan Basu mi ngi fi ñoom Fàllu mi ngi fi Alsaan nga jël lépp kon yow joxal ma ko xale yi ñoom Jules Badiane ñëpp macha allah fa tabaarakallaa kon kontaan na trop ci loolu. bu ko defee dañuy jéem a nag comme heure bi dafa xaw a gaaw te macha allah borom xam-xam yi ñu ngi fi oustaz oustaz Mansour Gueye mi ngi fi oustaz Cheikh Niang mi ngi fi Serigne Babacar si xalifa mi ngi fi Mouhamad loo mi ngi fi kon dañuy jël kàddu gi jéem a jox.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 allahuma laka alhamdu kama yambagi li jalaali wajhika wa azimi sultaanik anta allahu laa ilaha illa ant wa anta rabbul arshi alazim anta ahlul majdi wassanaa axaqu maa qaala bihi abd wa kullunaa laka abd loolu yàllaa ko moom wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin nabiyina muhammadin almabuusi rahmatan lil alamin wa ala alihi tayyibin altahirin wa sahabatihi algurri almayamin wa zawjatihi ummahati almuminin wa man tabiahum bi ihsanin waqtafa atharahum ila yawmi ddin loolu yonent bee ko moom wa radiyallahu taala an alxutubi al akbar barzaxi albarazixi imami a'immati almujtahidin man jamaa bayna sharafil fiqhi wa diin wa sharafil ilmi wal amali wal yaqiin wa ahwaali rabbaaniyati shariifa wal maqaamaati al aliyyati muniifa كامل الأقوار والمحاصي الظاهر والظاهر والباطن بهي البهي البهي جليل المنهر منور الشيبة عظيم الهيبة جليل القدر شهير الجهير زاقمة بعيد وحالد وحيد وكلمة نافذة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي قيل في حقه هل من هل من حوا كما لا مثل شيخ سيدي أحمد التجاني dégguma leen de waaye nee dee leen ma noonoo noonoo xam nga lu tax xam nga lu tax kullul muridina sans exception li sayyidi asbahu iyaala ndax sayyidna cheikh moom chekaana xurkaana maa ngi ñëw de maa ngi ñëw de wa kaana xawsan wasaara sa xatman ala rijaala cheikh tidiane yufi lil awliyaa turran bi izni rabbil wara taala loolu du tey daaka min aada min aadana ila nafti fi suuri lam yed moo tax mu waxoon ne qadama ya hëtaani ala raqbi kulli waliyillahi min ladun aadama ila nafati suuri loolu Mawlana Ahmad Tijaani ko moom wa radiyallahu taala an xalifatihi al akbar akbar أبدا ولاية تورى بي وآدم بين الماء والتين أجدف لني لخبيت الولاية مصباح السلام ومفتاح الكنوز وقتل الكل للحين تاج العارفين ومن يروي الغداء إله نجل تنتي بدفل لخ بيت الولاية مصباح السلام ومفتاح الكنوز وختم الكل للخير شيخ المشايخ بالإسلام وادي Cheikh Tidiane Cheikhul Madaahib Abasi lasi abul faydi aji def leen nii la ko baytul wilayati misbaahu salaami wa miftaaxul kunuuzi wa xatmul kulli lil xiini مصباح السلام ومفتاح الكنوز خاتم الكل للخير بيت الولاية مصباح السلام ومفتاح الكنوز وختم الكل للحين ورضي الله تعالى عن خليفته الأكبر الخطب الجامع والغوث النافع كما قال بايش الحاج منصور min zikri cheikhin aalimin mutawarriin xaadal lanaama ilal huda bi aynaani ne kii may bëgg a wax cheikhun taqiyun laa yuzannu bi ribatin ala istiqaamati bil ilaahi l muaani su ko bëggee wax moo lamboo aynu shariati wal xaqiqati moom Maodo innahu yahdi l murida li xaalisi la diyaani aw kama xaala baay Cheikh Hadi Touré laa yakfiyannaka cheikhun baadahu abadan in kaana yumkinu luqyaaka bna usmaana nee ma laaj rek hali shuyuuxu wa in jallat maratibuhum ila talaamidu idlaaqu bna usmaana ne posé naa question bi teg naa ko fi téeméeri at kenn ko kon sañ naa bàkk sama mbër ñu ne ko bàkkal ñu dégg mu ne lillahi darruka min cheykhin yadullu ala mawlaahu xawlan wa fialan yabna usmaana ñii ma jaar ci yàlla ci yonante bi ci Cheikh Tidiane bu ñu leen xamee fii ci réew mi fii ci Tiwaawoon góor gii may bëgg a waxal nag moo tax ñu xam leen moo tax ñu xam yàlla moo tax ñu xam yonent bi moo tax ñu xam Cheikh Tidiane ma bëgg nag ma bëgg nag képp ku yëg sa bopp ci Seydil Hadji malik ñu àndandoo bakk Seydil Hadji Malick ci benn seconde ci benn seconde ba waa Ndakaaru yëg ni tàntal nañu Seydina Mouhamed ca Tiwaawoon ca buntu kër Baye Cheikh Ahmed Tidiane si ñu ngi bàkk Seydil Hadji Malick ba waa Dakar dégg ko waa Njaareem dégg ko waa Kaolack dégg ko lan laa wax sànq maa ngi ñëw lillahi darruka min cheyqin yadullu ala mawlaahu xawlan wa fialan yabna usmaana ku d'accord ne alaaji Malick garaw benn baat rek laa soxla ñu wax ko xam nga mooy ban baat ku ci gën sutle ëllëg yowmal xiyaam